Thiago. dañoo fas yéene delloowaat kàddu bi ak lu làmb ndax mbokk yi xam ngeen dañuy wax ci kay sunu làmb lan kay dooreeti. yëglikaay bi di suñu làmb nag tey moom xëtamu njëkk moom boo bëggee dégg-dégg daal ñaar ñoo ca gën a xëy gën caa fees muy Bombardier Balla Gaye numéro 2 la nga xam ne nag wala boog ña nga xam ne ñoo cay wax mooy ña nga xam ne ñoom ñoo yore micro centraru làmb ji muy Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi ak ka nga xam ne moo di ipongaar yi ñoom ñaar nag bu fekkente ne biir làmb ja bu ñu yore micro ba moom dañuy bokk gis-gis fii moom daa mel ni ñoom ñaar ku ci nekk na nga gisee bokkul ak sa morom gisee ndax nag ka nga xam ne nii moom moo di ñoo bàyyi maanaam daal Fall daa jàpp ne Balla Gaye numéro 2 fanweer at ak juróom la am maanaam 35 ans Bombardier am 45 ans moo tax nag mu jàpp ne loolu dansé bu nganda nganda la ci ka nga xam ne nii moom moo di Bombardier maanaam fukkat yi nga xam ne moo dox ci seenu diggante daal dansé bu rëy la ngir Bombardier ci boobu combat waaye Hippo Ngari moom daa di wax jooja ne na ko loolu moom gisu ci ab dansé ne na kay dansé bu dee am fenn la am ci côté Balla Gaye numéro 2 daal fa la dansé ba war a nekkee moom Hippo Ngari daal booba gis-gis la am leneen loo xam ne ni moom wala beneen komba boo xam ne tam combat danger la muy Modou Lo ak Ama Balde yëglikaay bi nag tey daa ñëw maanaam dinu xam ne daal maanaam kado cadeau empoisonné bi kan moo koy jël ba nga xam ne nii daal moom la nekk ni ko laay teg yëglikaay ba xëy tey ñëw tegal ñu boobu xalaat wala mu andil ñu boobu gëstu ci boobu lépp komba leneen loo xam ne ni wala keneen koo xam ne ni moom maanaam ab ménage la ñu naan ko Paala Diop Paala nag moom tey da xëy daal di wax ci diggante Modou ak Ama muy xam le leen daal bal Baldé mën naa daan Modou Lo facilement waaye ci kaw maanaam bu defee nangam def nangam loolu daal mooy waxi ki nga xam ne ni moom moo di Paala Diop wax ja nag mu nga ca biir yëglikaay ba nga xam ne moom moo di sunu lamb ba tey bu nu continuer ci xët wu jëkk sunu lamb Ibu Senghor numéro 2 ak ka nga xam ne moo di Tanor bu Jurbel yëglikaay bi na na combat ñaari géant combat la boo xam ne daal fi mu nekk nii maanaam promoteur ya ñu ngi koy démarché nag ngir fas yéene boole ñaari mbër ya ñu bëre yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di wax. lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ca biir yëglikaay ba mu nga xëy di nu xamal ne daal maanaam boo bëggee dégg dëgg nga xam ne moo di Obali général Malick Dourou Sané Serigne Ndiaye numéro 2 na mbër yi nga xam ne daal lit simple bi ci lañ ne ñu ngi leen di xaar bu baax a baax a baax ci lit avec frappe bi yëglikaay ba moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu lit avec frappe boobu moom fi mu nekk nii nag dimanche ji nu jëm tey ubbi ay buntam mu mel ni ki nag ubbi ga muy ubbi buntam moom moo tax yëglikaay bi dinu xamal ab face à face boo xam ne dina am le 12 octobre ka amal moo di Assane Ndiaye war a dox ci diggante Fils de Balla ak général Malick muy talaata jiinu jëm daal la fas yéenee am fa muy amee yëglikaay bi nag mu ngi ñuy xamal ca tuusenu daal nenu maison de la culture duuta sec ba ca Médina fa lay amee kenn koo xam ne ni moom ba sa saison ba ubbee xaarul la douze moom teel naa commencé muy jax ginnaaw dimanche ji nu génn ba mu ñëwee Iba Mar Diop di la trois maanaam yëglikaay bi xëy na ñu xamal ne daal jax boo bëggee dégg-dëgg le dix bii nu jëm di dimanche. bii nu jëmaat day dikkaat Ibamar ak ñetti million yoo xam ne da ko fay tegati ci lit simple maanaam ku daan yóbbu sa kër yëglikaay ba moo xëy ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu buñ fa jógee dañuy dem record record lan fay fekkati mooy coowal mobile ak waa écrit ganaa a yoof mel ni ki nag boo bëggee dégg dëgg daal mobile yëglikaay ba mu ñuy xëy di ñu xamal ne daal maanaam acte yi nga xam ne nii daal maanaam wala boog li am mu bil xëy na dina ci tontu indi ay acte wala mu def ay acte waaye ka nga xam ne nii daal moom moo di Zarko daal daa mel ni moom tàqale na mobile daal ci koom parce que nag daa jàpp ne la mobile def daal maanaam àndu ci tey suba waxi noppi yemu ca moom Zarko tamit staffu Grand Yoff mbooloo ba tamit daa mel ni boole na leen ca jëf jooju nga xam ne moom la def parce que daa jàpp ne lu jiin njaaka rek ñoom la moom sarko daal loola la gis tey moom ma nga xam ne nag écrit Grand Yoff mbooloo googa la nekk tey itam la daal seen kaw ci seen kaw la dal moo tax mu xëy di wax ka nga xam ne nag moo jiite amateur yi moom muy dut jaan jekk ko ci record ba tey mu nga xëy di wax daal maanaam fi mu nekk nii daal bu bëggee dëgg-dëgg daal maanaam ngir ñu privilège nag lu dem ci wàllum intérêt yi la nga xam ne ni moom moo di làmb ji bañ koo def intérêt personnel maanaam daal ñu def ko intérêt général ñépp bokk xeex bi maanaam fexe làmb jëm ca kanam tey itam wàllum ga ñu gën koo yokk ak frais ak la nga xam ne nii daal moom moo di fair ba dut jaan ko loolu la xëy di ko wax ca am na koo xam ne mu nga xëy di ko jàlle ay mbokkam muy xaaya géey ñu xamoon ko mu nekkoon ci làmb ji te bëri ki dem bu yàgguloo njaay bi màggal gi jubat mu wuyu ji boroomam loolu nag fa la ñuy jaare kon tey ci àjjuma ju sell ji ñaanal xaaye géey moomu ak bépp doomu aadama boo xam ne tëdd nga si biir suuf yal na la yàlla jéggal te xare aljana barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke yowmal juma attention Jackson daanu